Sophie mu indi ñu li nga xamante ni moom mooy tapioca au lait tapioca nag ku ko dégg mooy li nga xamante ni boo ko lekkee ci juróomi fan am yaram. ay ay bisimilah. <laughs> na Dieynaba xanaa ñu ñu yeggali euh, tapioca bi rek comme ni nga ko waxee rek euh, ñi nga xamante ni dañu loof rek bëgg a ko tuuti mën nañu dem ci grande surface yi jënd ko buñ ko jëndee defar ko rek buñ ko lekkee seen yaram dina ñëwaat ndànk-ndànk te mu nekk ay produits yoo xam ne ay produits yu naturel la li c'est euh, c'est fait à base de manioc du la andil benn problème gis nga nag sànq astuce bi ma joxe woon rek bu la neexee mën nga ko gonfler gonfler bi mooy da ngay tàngal ndox ba mu tàng def beurre def pincée de sel sotti ko ci ub ko rek moo koy ñoral mais man façon bi ma ko defaree tey dama teg ndox bi beurre pincée de sel def ko ci togg ko 10 minutes gis nga nii rek euh, mu ñor dangay mel na rek day mel na rek benn genre sombi lay doon. mais du soom bi voilà gis nga nag bu ñu defee nii ba pare fekk fay nañu gaz bi bu baax juste rek jey euh, na ba 10 minutes rek nga koy kii parce que sinon dafay pâte ba doo ko mën a doo ko mën a utiliser suñu paree rek damay ñëw rek euh, sotti moitié bi ci bool bi. voilà gis nga nii rek ma def moitié bi lii ma delloo ko fii gis nga ni mu mel nii rek lay mel Dieynaba gis nga nag xam nga nii nag dafa tàng boo ci defee meew bi euh, boo ci defee soow bi directement dafay waa dafay dog dañuy ñëw rek am nañu fii euh, benn lait concentré non sucré boo xam ni à base d'ananas dafa am ananas moom la ñuy def comme ça dafay gën a relever goût bi moom lañ ciy sotti moitié bi. xam nga lii moom boo feebaree ba tane rek boo ko lekkee dafay am solo ci yow gis nga ni ñu yëngal ko ba mu jaxasoo bu baax am nañu fii tamit les concentre non sucrés moom it ñu def ci ñu rappeler juste que bi ñu koy togg tamit def nañ ci tuuti suukar parce que booy togg tamit base bi boo ci defee sucre dafay euh, am solo ci li nga xam ne moom ngay préparer ñu daal di jël deux cuillerées à soupe de sucre ñu yemale rek suukar bi nga xam ne moom la ñuy toggee toujours parce que daf ci am solo temps yi feebar yi bari na lépp looy def rek da koy def ak euh, modération ñu mélanger rek gis nga déjà ni ñu am benn couleur boo xamante ne nii rek ça donne envie am nañu fii tamit li nga xam ni mooy euh, essence caramel bi moom laa utiliser tey. tuuti rek moom it ñu mélangé gis nga nii naka buñ ci mélangé ñaari meew yi ba pare mu leer na ni que jëy ba fi mu ne nii tàngatul dèjà xet bi muy dégagé rek euh, macha allah te lekkaay bi dem jëy na ba tey lii ñun duñ ko laal. bañ a laal yow bu laal. <laughs> ñu daal di jël lekkaay bi moom tamit sotti ci ba mu doy mu fekk si lee voilà. gis nga nag bu ñu defee nii ba pare mélanger rek ba am li ñuy soxla voilà gis nga ni pare na fi mu ne nii boo ko tegee jey na ba kenn du comprendre day foog ne mu xam sa la wala mu foog ne soit fondé la wala genre yooyu te fekk ne tapioca bi moom nga defar nii revenir ko ba mu macha allah fi mu ne nii mën nañu teg ni euh, kuddu bi daal di jël rek euh, benn bool bu ndaw rek ñu ñëw rek daal di ci euh, def tuuti. voilà ñu def benn cuillère bu généreuse nag jarul ñu ci dolli waat wala ñu def tuuti rek voilà suñu defee nii nag ba pare am nañ fi quelques clémentines ak suñuy langue de yi waa sànni ko ci rek parce que moom tamit daf ci am solo voilà nii rek fruits séchés. nii fruits la voilà. dafa am ñun ñu am métitu bëñ. non gis nga nii rek bu ñu defee noonu ba pare euh, mën nañu jël lii euh, ay oreillons de pêche la. Oh. mën nañu jël benn rek teg ñu jël tamit benn clémentine tamit daal di teg ni suñu paree fii am nañu aussi euh, lii euh, crème dessert la à base de chocolat juste pour embellir moom se facultatif bu la neexee nga def ko bu la neexee nga bañ ko mënuñu koo lekk <laughs> waaye gis nga moom rek la ñuy jël daal di def nii rek euh, au milieu voilà gis nga jeena ba fi mu ne nii pare na nga am sa benn kii tuuti pépine de chocolat en couleur yi <laughs> nga jël rek daal di ko ci de non xam nga touche finale dafa am ci dafa am solo ci li nga xam ne mooy cuisine parce que bokk na ci li nga xam ne mooy base bi nii nag boo ko defaree mado ku seen assiette bi rek dafay am envie lekk même bu xiiful woon automatiquement ci saa si da koy bëgg a déguster nii nag rek la ñu koy defee jey na ba ci kanam ma andi rek ñu ñam ku ne benn kudd rek comme que ñun moom <laughs> dañu xaw a macha allah ñu ñam ku ne benn kudd rek bàyyi noonu ba beneen yoon ma ne xaaju kudd rek waaw xaaju kudd <laughs> di ma xaaju kudd d'accord Dieynaba en tout cas c'est magnifique euh, Sow. merci beaucoup koo koy yekkal. Euh, xanaa ma yekkal ko rek madame Ndiaye sama sama yaay ju baax ji ma Anna Ndiaye félicité Batrin. wallaay <laughs> waaw <laughs> ma yekkal ko ko rek. yàqu na léegi mu ne. tonton mag man kuy tonton mag. eh allez yow <laughs> kuy tonton mag moom. aw ma tontoo mag en tout cas Sophie léegi yàqu na <laughs> nee na may na ko madame Ndiaye ba nekk ca cité Batrin suñu yaay jooju nga xamante ni daa baax ci ñun waaw ah, ma mel ni yow léegi rek macha allah defar noonu moom daa sopp ñun ñëpp ci plateau bi sax waaw suñu yaay ju baax ji maman Ana Ndiaye borom bu buy baaxi borom bu buy baaxi ci man <laughs> macha allah <laughs> merci Sophie donc à tout à l'heure <laughs> on va déguster ensemble ce tapioca au lait sànq Sophie wax na ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg euh, am yaram wala ñi nga xamante ni ñoom ñoo euh, daal di sonn loof euh, bu baax mun nañu rek daal di lekk ci tapioca au lait bi genre sombi la rek ngeen koy def def ci xeetu baax baax meew yeeg mu nekk lait concentré non sucré wala kon meew bu flûte bi ngeen def ko ci mu neex Sénégal jëm kanam comme nuñ koy rek euh, daal di euh, waxee